أحمد مغنيا تعالى عن سنا وكان لي بكل شر وسنا أحمد مغنيا تعالى عن سنا وكان لي بكل شر وسنا خاطبته في البر والبهر وفي أسري والجار مع الهاجر وفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائق مع صلاة سلام لا يجاري سلام على وسيلتي لك الماح الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له اليم بشارات الكريم لديك يا باقي مزيد لا يريم يا ربنا صل صلاة بارعة مع سلام بالمنام woote dinaa jëm ndex moo jooli bari bari saqaay maam kaay leen liggéeyal sëñ bi mooy kaay leen texe loolu mooy li ñu tax a jóg bi ma ñëwee maa ngi fekk sëñ Fallou càll ba diir bi ma toog sa xaw naa diis ci man ndax bàyyi sa bàyyi mu nekk ca ronuk sump nga dikk toog fii loolu lépp sëñ bi sëñ sëñ bee ma xawal te teyit ñii ma fa gis tey dañuy murit gi te waxtaanu murit bu xasee ñëw dootoo moom sa bopp moom ma fa téye ba noppi na man daanaka ñaari minute laa daa am waaye waxtaanu murit wee neex ba mënumaa dem ba nëgë ni ndax ñi mu fekk ñëpp ku ci nekk bopp yoon nga te li sëñ bi nekk daana ci la war rek moo tax bu néewuloon ci la war xam nga man euh, ñu bari ñàkkuñu fay la waaye liggéey ci lii lañ moom suñ kilifa yi lii lañ leen xame woon dem ci àll ba gor ko sanc ko liggéey fa di fa yar nit ñi yar taalibe ak jàngale moo tax na du ay at a tax ñi fi daje ñëw fi dañoo ñëw ngir kii de li muy sàkk lu baax la te ku ko ci jàppale na yàlla jàppale na ko waaye jàppale gi mooy ku woote ci lu baax boo ca waree dem dem ca ngir yàlla ngir ña ca des ña la cay roy mu ne nii am na ñoo xam ne bu ñu gisee itam dañuy daal di jaajuwaat euh, ni ah gannaaw suñ seex demoon na di barkeelu day kon nag mën naa jóg yoon loo loolu rek fi maye dara yaakaar waaw boo jógee da am sa yaakaar dañoo wax ne sëñ Tuubaa dafa fekk saaba yi ñuy waxtaan maanaam magi mag mag mag magi taalib yi di waxtaan ci baaxuk saaba yi mu bett leen mu ne lu ngeen di wax ñu ne ci mbirum saaba yi lañ nekkoon mu ne leen day wax ngeen dëgg de waaye lu lu lu baax kilifa di maye day am ngeen ko li ñu leen rawee mooy da ngeen dul fas waaw lu lu ci waa ji duggati na koy fas ah maa ngi seet sëñ bi fas naa ci yéen nangam loolu rek la nu saaba rawee waaye neen lu baax kilifa di maye am ngeen ko loolu leen sëñ Tuubaa waxoon kon loolu laay rogalaat ba nage ni am naa bis boo xam ne nii dem naa ci woote sëñ Abdou Khadir ci yoonu Daaru Salaam Darma loola yàgg na boobu sëñ Modou ngi fi alu roxu nag dasaa sa si di day royaat da ko sànq mën leen kuñ ne sa baay baax na sonn nga ndax boo bëggoon mel ni moom moo lay tax moo lay tax a te bàyyi dañoo baax bëpp kii fi dajeel yoon wi moo fi dajeel ñëpp waaw buñ la ne moo moo moo mooy loxol yoon wi ah kone ne ne kon yoon wépp lañ woo ah hmm? daa tolloo nag ku ci nekk am nga ko la yebal waaye nag xoolit day yeble ñun ñi suñuy xel moo moo indi waaw hmm? suñu xol moo ñu indi ndax euh, la ngeen waxoon la sëñ bi waxoon euh, dëgg-dëgg xarit mooy koo xam ne kii bu tiisu jamono sang songee ko kala teewal mooy sa xarit waaw benn benn tis tis bu ñëwee rek walla benn jafe euh, ba lu mel nii rek ña nga xam ne ñoo ñëw wër la jàppale la ca ñoo ñooy ñooy ala xooxan wala xalilu siddiqan andaru min kulli xalil waaw rek moo ci ne axan wal xalilu siddiqan andaru min kulli xalilin xaqa loolu moo moo nu fi dalee sant yàlla bu baax di sant Serigne Touba ci rafet njort lool ak ne tawfeex am na ci liggéey bi ndax yàlla def na tey jii bi ma xëyee moom mi laa jëkk gis may ubbi ñu ne mi ngi fi te loolu doy na sëkk ijaaba daaw daaw dama doon tukki euh, jëm Turquie ci taalibe yi ma gën a daaw may dugg ci avion bi xaw ma ne siñ Cheikh ngi ci biir ma duggee ba toog rek mu séen ma ñëw nuyu si ma ma ne ko ah sama xel dal na dina li may doxe Sëñ Tuubaa nangu na ko kon nag bu may xëyee fekk ko fi moom mi ak suñu famille mi nga xam ne moom itam xam ngeen ni mu demee di sëtu Serigne Serigne Assane ak ñi ñëpp suñ maam Baye Niang mi nga ne maamu suñ Modou Fadiama xam ngeen ne ci ñett ñi njëkk a suñ Tuubaa ci la ala jili jaay mi maamam ñaari ñaari côté yëpp suñ sultaan Jaw xam ngeen ko suñ mat Jaw ñëpp xam nañ ni mu ci sëriñ bi ak ñi fi teew ñëpp jërut lim ndax loolu andiwu leen fi ak maam daam ñu ngi koy nuyu ñoom ñëpp waaye li am solo rek mooy bu sa bu sa xol nekkee ci sëñ bi euh, daanaka doo tala sax euh, de wax li ñuy wax mu jaamu la ndax yëg-yëg laa ci am mayet ndax liggéey bi moom waxtu ko ne damay bëgg ñu sellal ko sellal gi muy nekk fu kese suñ Cheikh wax na ko léegi ne sëñ Tuubaa néewoon na li leen saxaaba yi raw yi mooy pas pas pas pas li ñuy def fas ca lii itam kon man moo tax daanaka suñ fan mi sa wax naa ko ba tey nekk am na ci loolu bëgguma jur ko leeral ndax day yàq jëf mm-hmm. ndax bu ne li fi def lépp dañ koy jëme Sëñ Tuubaa mm-hmm. loolu tuuti la mm-hmm. ndax du sant sëñ bi sax ndax ndax loo fa defoon ba yéem ko ñaari fan ñett danga ko ci am kon joxe woo asakay asakay asakay asakay rek la am kon loolu moom lu ñu nawee di niw ci li ci des rek mooy sant bu baax a baax suñu Cheikh yow itam ñu ngi lay gërëm bu baax ci li nga jëf ndax xam ne Sëriñ Tuubaa rek tax nga ko ndax sa posté fa sa dogu ndax euh, bu fekkoon son yoon wi wàcc am na kon ni ma la ko waxee kon wàcc nga ndax liggéeyal nga Sëriñ Cheikh Mbacke ba mu gërëm la ba yeewi la waaye yemoo ca Sëriñ Mbacke ma dina gërëmaat la waaye doomi Sëriñ Tuubaa it Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdoul Khadr Serigne Saliou Serigne Souhaïbou Cheikh Mamadou Mourtada ñoo ñëpp nga laqaat seen gërëm te lenn lenn ngërëm lu mu ci doon a doyoon na mm-hmm. kon bu fekkoon wàcc dana am ci biir yoon wi kon mën ngaa wàcc ndax sa dund gépp li ma la wax léegi loolu taw taw feex la ju la sa maam defal njabootu Sëriñ Tuubaa itam jëfandikoo ci yow mm-hmm. ba mooy cër bi nga am kon nag dañ lay ñaanal suñ borom gën a dolli sa kattan dolli sa wér ndax da ngaa bokk ci ponk ponk yoon wi bokk nga ci ponk yoon ndax sa dara génn suñ bi sa sa sa dem ak lépp gën du Sëriñ Tuubaa sama digg yow itam ginnaaw loolu li nga am sama kilifa yëpp it Sëriñ Tuubaa boolewaat ñu boole ñu kóllëre boole ñu xarit boole ñu ak cofeel yàlla def na itam njabootu Cheikh bi li muy yaatu yaatu jàmm njëkk a tuddee doom wala ko ko jox ma kon loolu loolu doy na sëkk ab cër doy na sëkk luy wane sama digg yow maa ngi ci sama daara jee ca yoon Darou Moussi te loolaa ci gën a tuuti. jàpp geeg cofeel geeg lépp xam nañ ko te bu loolu lépp amutoon tam man na sama positif suñu tubaab mooy képp ku ma gis ngay dox ngay dox ci yoon yi doxinu positif bu ma la gisu tam yaa may gën kenn te sa dara génn suñu tubaab euh, nag ni daaw yaa ngoon ci liggéey suñu saaba fukki fan a juróom fi nga toll ci at boo yebaloon say doom mu dem mu doy waaye da ngay lax saay ndef ba liggéey bi jeex kon la suñu tubaab waxoon Cheikh bi tam la fooy netti léegi rek. ba ba ba ko suñ di wax ne ko nee ko na noppalu ndax li ko dal lépp liggéeyal ma moo ko teg kon wàcce naa ko ci lépp maam Cheikh bi ne ko nee ko du ma wàcc mukk ndax moo ma njëkk a xëy ci liggéey Rasulullahi te wàcc gu ma de kon li fi wàcc du kon Cheikh bi moom yéen tawfeex ji ngeen am yéen njabootam gi ci bëgg Sëñ ba mel ne tëyu leen ko day ko faggoon moom moo leen faggoon ak bëgg Sëñ Tuubaa loolu moom du lu yomb amul leen sago ci waa kër Sëñ Tuubaa xool leen nu nit mel xool leen nu melut ki ngeen fekk muy jaamu yàlla ak ki ngeen fekk muy toog di waxtaan ki ngeen fekk mu ne ci yéen xamewu leen ko Sëñ Tuubaa ngeen xool ci moom te yàlla def ci yéen it lu ma yéem dama naan leen loolu sax seen maam ngeen ko doon ne Cheikh bi rek ci waaye ko gis ni mu doxalee addunaam nga ko ëpp fi waaye ño waaye ñoom ñii seen dof gépp ci Sëñ Tuubaa waaye leneen lu doon boo jëmee ñoom xale ñoo xam ne ñoo la xel loolu Sëñ Tuubaa du ko defal seen seen pàggu teefu maam am ci nag xam naa ne ba muy liggéeyal Sëriñ Tuubaa fàggoon la leen ci yéen ndax àdduna li muy yaatu yaatu li muy jaxasoo jaxasoo ba ndëgg ni man dama koy wax ku ci dugg ci seen biir kër yi gis yar bi gis tarbiyoo gis taalibe yi ba ci seen njabootu bopp yi ku leen seen mun leen xam ak taalibe yi loolu loolu loolu loolu loolu rëy na dara dara lu yàq jamono dugg dugg leen loolu tawfeex loolu pàggu teef ndax kenn mënu ko defal sa ndax nit moom day xalaat root na fi àdduna tool lépp nekk benn dëkk ni koy waxee loo xew fee xew fale waaye yéen xool leen dara lu may Sëriñ Tuubaa leen dara lu may Sëriñ Tuubaa leen bëgg amu leen bañ lu may Sëriñ Tuubaa loolu tawfeex la kon nag ñi ñaan bu te tey rafet njort da ngeen yàlla defee liggéey bi ñu xëy mu jëm ci liggéey Sëriñ Tuubaa ngeen njëkk fi kon gëm naa ne Sëriñ Tuubaa nangu ko te Cheikh Mouhamadou Mountakha itam mm, wax na keroog Sëriñ Moustahine ci fan yii weesu ne ko suñ ji mu yore fekk daaw la moo njëkk wax ne ma lii nga li nga li nga jëf de li li li li tax mu rafetal ma jot dama la ko yéene ndax gis naa ne doxalinu mag ñaar dafa mel na ma ñu doon dox daal bëggoo ko soppi daaw la woon mu yónnee fa addi ju tuuti daaw màggal Porokhane gi suñ Moussa nee na ma suñ bi tey addi ji ah addi suñ ne li fi ñëw bari na addi yam ji de neex na ndax fas fi waaw baren lam ci waxaat mu ëpp loolu ma yow de ni ma la gisee daa mel ne eh, sëñ Mandou Mbaye ñoom ngay roy ak Cheikh Issa noonu la ma ko <laughs> boobu néew ma ko sax la ma ca waxaat fàggul ma ko ca <laughs> du waxi du waxi mbooloo kon nag ñu ngi sant bu baax tey gën a dalum xel rek gën a dafa njort tey ñaan yéen itam jéego yi ngeen dox ba fi ñun mënaluñ leen dara daxuñ leen jaamu yàlla gënuñ leen jub gën leen nekk ci lu baax. kon bu ngeen def nii rek du suñ jëm yi jëm suñ Tuubaa tax suñ Tuubaa ma leen tax a jug nag moom dara umpiwu ci moom kon yàlla na jëf yàlla na yàlla na seen defarug àddina ak alaaxe di seen fajug aajo defarug àddina ak alaax gi am na sax ndax suñu kilifa defal nañ waaye yàlla na seen fajug aajo li seen kanam wasahbi bil xaali wal maali وهب له يا رب يوم السبت وكل يوم يافي عن من نبتي وجلت